salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهٍ ما الأبصر والسفر بسم الله يكفيني أدار يا الله صلي بقاء بفيق يا الله بسم الله يكفيني أدار يا الله صلي تقع بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برحمتي ألا ألاقي درا منك سوين سوين سوين فالو رقم لا Mbacke mu Serigne Saliou mu Serigne Fallou waaw waaw kon ñaan nag sëñ Abdou Karim na ñëpp àgg suuf te dégloo non mayel mayel sëñ Mamor sëñ Mamor doomi sëñ Ibra ko jëlam mu sëñ Modou Abad waaw dina ko jël dina ko jël déglu leen li sa sët moo la siyaare si muy sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëriñ Bassirou moom mu sëñ Modou Boussa Diagne ànd ak di sëriñ Fallou rakkam ak baayam bii di sëriñ Modou moom sëriñ Sall mu sëñ Fallou ak sëñ Mamor Mbacke dende moom bi Ibra Xuja dikk gi nag li ko waral dikku cant la rek nee na ndax cant gi dafay tàmbalee ci yow yem ci yow nee na ndax sabat bi mooy bi ngay woote liggéeyu université bi wax ni bëgguma laal suuf. nee na baatu bëgguma mu laal suuf boobu yi moom moo moom moo ko motiver may ko initiative ba mu créé lii usine bi lépp mi ngi tënku ci turu Binta te nee na Binta bi soxna man Binta Jaxate moom la ko tuddee eh, am na am na ñaari usine bi nekk Daaru Minam maa nga ca marché man Binta am na ci boo xam ne Aliou la ne yenn yi di defar saabu yen yi defar dëwlin ñaari usines yi ko boolee lu mat juróomi téeméeri nit. yoo xam ne ñëpp ay doomi dëkk bi leen usine bi jël na leen di leen liggéeyloo di leen fay weer ngir ñuy mën a dimbali ko te nee na loolu lépp mbàkke ma ma ngi ci yow li nga ne bu wóomu laal suuf nee na looloo tax mu sos lu mel nii xam ni ñoom ñi doon seeti sëñ bi bu nu jàngee ba mokkal dooni sëriñ war leen tee liggéey ndax sëñ bi jaamu yàlla ak liggéey rek la wax. li waaw li mooy juróomi litre li mooy juróomi litre bi waaw. waaw jërëjëf. nee na xolam sedd na guy. nee na jël sa xol sàmm la aar la. mu ne la fi lu yàgg mu ne bàyyi la kattan. ba nga gën a mën a àggale sa ci liggéey bi. mu ne jërëjëf Mbacke sant nañ la nañ la ci taxawaay bi jërëjëf. indi indi na dëwlin mu jox ko. ñaata ñaata. deux cent. deux cent litres dëwlin. deux waaw. fukki carton fukki waaw mun géy waaw. waaw mun géy waaw. ومنك إليك بالمدينة سبقت فلم يكن مبارك مهزما بسم الله بانا مباكر نكوت wasal Global Agrocommodity présente Huile Binta. Oui, euh, découvrez de nouvelles saveurs et soutenir les produits locaux avec nos produits 100% naturels, raffinés, blanchis et désodorisés. waaw waaw da ngeen di wër diwlin bu baax. diwlin gu set sell te ànd ak gu bu neex. daw leen gaaw Global Agrocommodity mu jaay leen diwlin Binta bi nga xam ni dafa 100% naturel. waaye ànd ak une subtile saveur qui améliore merveilleusement la qualité de vos plats. temps mën nga ko denc ba heure bu la neexee te du yàqu li ko waral di sa bonne résistance à la chaleur diwlin Binta mooy diwlin bi ànd ak ba pare idéal pour la cuisson mën ngeen a jokkoo ak Global Agro Commodity ci 77 537 32 32 ou le 77 645 24 51 ou le 77 755 90 82 mbokk yi binta yamul foofu def leen indil engrais indil leen ceeb indil leen lépp lu jigéen di soxla ngir këram gën a mën a set waaye indil leen yeneen xeeti produit yi lu ci mel ni sésame noix de cajou arachide sucre mangue ak blé diwlin Binta daal c'est l'épanouissement assuré de toutes les femmes global ak Rokomoditi nekk ca Touba Xayra mooy ñaanal la xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di souhaiter mouride yépp un beau magal de Touba